voilà mi ngi noonu ci euh, daara bu nekk daara bu nekk euh, fooñi wetu kër euh, Dame Diop Mansour benn taalibe bu fa feebar ñàkk bakkanam noonu autorité yi lenn lañu mën muy lan woote pour wax que ni voilà pour wax ni ñoom taalibe yi lañ fi nekkal et cetera léegi ñi nga xam ne ñoom dañuy wax ne taalibe yi lañ fi nekkal lii bi muy xew fan la ñu nekkoon parce que boobu il paraît que feebar na pendant trois jours pendant trois jours mu feebar euh, sama xaw dafa tooy trop mënu ma wax mais nag sant yàlla parce que yàlla moom donc voilà donc vous avez vu chauffeur bi noonu dem na corps bi la yóbbu noonu autorité yi nga xamante ni bii buñ jugee dañuy naan ñoom taalibe yee leen fi teg ak nangam nangam léegi gaa leen ngeen dem jaale ji parce que lii rek ngeen mën a ah médecin après la mort parce que xale bi dafa feebar bi ñu ko yóbboo sapeur sapeur jël ko yóbbu ko hôpital Dabakh hôpital baax nag xaw mu ma dañoo ni mënuñu ko faj xamuma ay moyen la mais certainement ay moyen moo tax fajuñu ko ba indiwaat ko ci daara ji mu ñàkkee bakkan fii ci daara ji fii la ñàkkee bakkanam donc police ñëw na sapeur ñëw ñëpp def nañ seen liggéey en plus de cela jël nañ koor bi ba koy yóbbu ñu ngi noonu nag yàlla na ko yàlla yërëm xaaral ko àjjana ci barke nabi